Oumar Diagne maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay ngay njiitu SOS littoral ñu gis nag ni tabax gi nga xamante ne moom la ñuy faral di def ci corniche ouest président Bassirou Diomaye Diakhar Faye dafa jël dogal rek ngir ñu jël lépp euh, teg ko ci suuf muy révélation goo xamante ne architecte bi di Pierre Goudiaby Atepa jot na kaa def ban jàngat nga ci am. waa jàngat biñ ci am bon ñun dañ na rek loolu c'est normal et puis encore par expérience. mais état bu nguur gu ñëw Abdoulaye Wade bi mu ñëw defoon na ko Macky Sall bi mu ñëwee defoon na ko tey Bassirou Diomaye Faye son excellence def na ko mais loolu c'est dans l'ordre normal des choses c'est-à-dire boo ñëwee di jël dara mais il faut nga def diagnostic nga nga nga nga xool donc ñoom li ñuy def diagnostic rek la mais ñun xaaruñu diagnostic ñun li ñuy xaar mooy ay audit sérieux en profondeur alors du domaine public maritime bi nga xamante ne mais dañ ko soppatoo comme prédation mooy soppatoo alors euh, donc ñun tëbuñu feccuñu ñun euh, fi ñu toll nii ñu ngi observer alors diagnostic li ñuy def arrêté construction yi sur le littoral Macky Sall defoon nañ ko mais bi Macky Sall jógee ci diagnostic bi mais les choses sont allées de mal en pi voilà de mal en pi maintenant euh, li ñuy xaar daal mooy euh, ñun juróomi question la ñu posé at yi yëpp ñu koy posé ah euh, fii lan la fi nit def naka la fa naka la ko defee moom moo kan ñoo ànd def ko kaña la ka def ak nan la ko defee donc loolu moom laay wax depuis deux mille vingt bi ma xamante ne maa ngi lancé euh, le concept de la grande halte du littoral mu nekk benn acronyme H bi nekk alt nañ arrêté alors A bi nekk aux accaparateurs ñi nga xamante ne dañuy ñëw di Giro alors kii euh, bi el bi nekk littoral maanaam peggu géej bi alors te bi nekk euh, des terres suuf si E bi nekk des espaces alors euh, littoral bi moom xam nga suuf la te peggu géej la c'est-à-dire aussi ñun dëkk dëkk bi daf ñu intéressé les le foncier du continent voilà mënuñu wax littoral ba pare di ko génne ci foncier continent bi le littoral est le prolongement du foncier du continent Sénégal nag dañu am problème si wàllu gestion foncière gestion foncière boobu nag nguur gu bees gi fi ñu koy xaar mooy d'abord am na benn décret le décret deux mille vingt et un dix cinquante cinq bon am na loi yu bëri yu protéger littoral ak ay convention internationale nguur gu bees gi foofu lañ koy xaar parce que ñun ñi di saytu yooyu gis nañ ne li tubaab gi wax ay manquement yu bëri ay vide institutionnel ak juridique dafa am si loolu loolu nag mu mënuñu ko développer si euh, kii bi téléphone bi nii dafay laaj ñu toog dans des ateliers wala ñu ñu ñu amoon émission bu yaatu man ci dugg mais vide juridique yi ak vide institutionnel yi mooy déjà euh, gis nga convention bi nga xamante ne moo protéger les tortues marines Sénégal toppatoo ko sax parce que tortue marine yi ci littoral bi la ñuy ne mais jën yi ci littoral bi la ñuy nene alors euh, convention biodiversité bonne ak convention Ramsar bi nga xamante ne moo protéger toutes les zones humides du monde te littoral bokk ci yooyu yëpp Sénégal euh, euh, toppatoo Sénégal dañuy voté loi yëpp teg lépp mais moo après duñ ko duñ ko topp léegi nag euh, foofu noonu dafa am lu ñuy wax le code de la marine marchande le code de la marine marchande fa la loi domaine public maritime génne bi nga xamante ne mooy moy protéger littoral bi mais foofu si loi bi boo demee ñun article dix bi moo ñu si intéressé parce que gis nañ ne article dix neuf bi dañu dafa jox pouvoir yu bëri bëri bëri président yoo xamante ne benn nit warul yor tous les pouvoirs dans un pays euh, maanaam président de la république rek moom moo mën a ne écoutez littoral bi maa ngi déclassé fii benn emprise parce que zone naturelle boo xamante ne ñëpp ñoo ko bokk c'est un patrimoine commun yemul sax bokk bi si waa Sénégal mais même les citoyens du monde littoral bi ñoom si lañ bokk le littoral est un patrimoine universel alors léegi président de la république day jël décret rek bind ne bon peggu suuf bi dindi naa ko nañ ci def dara mais mais ah, loi bi daf ne nañ fa def loo xamante ne askan bi yëpp lay jariñ pour cause d'utilité publique mais ñun lan nañ gis ay nit yu fay tabax kër loolu est-ce que yëpp a sa moom ay ay ay ay ay ay euh, ay infrastructure privée ay hôtel yoo xamante ne benn nit ak moom wala xaalis bi sax di jóge fii di dem bitim réew parce que ay nit a neex yooyu ñoo fa installé wu sans pour autant di boddi xeet boddi wu ñu xeet mais ñun li ñu gis di si teg suñu baaram ñun loolu il faut ñu wax ko bon donc il est temps que nguur gu bees gii bon ñu nga xam ne ñëpp am nañ si ñoom yaakaar ñoom ñoo ñëw mais Sénégal dara jaaru fi yoon injustice moo fi am addina bi yëpp toppaleen Ousmane Sonko fekk ñu sax ci xeex boobu euh, le premier ministre ne moom bés bu ko yàlla mayoon mu jël réew mi li nekk ci littoral bi yëpp da koy toj ñu ngi koy encouragé ci loolu parce que bés bu ko defee mën naa la wax bu jomaay jeexalee moom mii la ñuy def président parce que population Sénégal bi yëpp li ñuy xaar mooy li nekk ci littoral bi fii ci béton ñu dindi ko restaurer naturellement les écosystèmes marin parce que euh, jën yi ci littoral bi la ñuy nene ñu biir géej alors te bu ñu yàqee foofu niñ koy yàqee def ko béton day fatta euh, les eaux de ruissellement ndoxu taw yi doon wala ngaan di dem ci géej yooyu mooy yóbbu ferñeente yi ñuy wax les phytoplanctons et les zooplanctons te loolu mooy régénérer les fonds marins loolu mooy tax jën yi mën a judd ci littoral bi dund dem géej alors di fécondé di màgg et cetera géej gi am jën mais immigration clandestine mu ngi nii yooyu lañ yàq moo tax bi mool yi amatuñu jën moo population sénégalaise bi est exposée lekkatuñu du poisson donc yooyu moo ci am te loolu conséquences yi jéggi na dayoo alors te ay ay ay benn benn nit ñooñu ko teg benn benn nit ñooñu nag tey jii nguur gi lu mu bëgg a xam xam nga dafa war a xool ñii nan lañ toogee fii kan moo leen fi teg naka lañ fi naka lan lan lañ fi def kaña lañ ko fi def ñu dindi loolu yëpp corriger ko voilà bu ñu paree ñu corriger les problèmes fonciers du pays donc ce pays là il faut que ñu def mettre que en l'ordre parce que euh, càcc suuf moo fi ne alors euh, suuf fi cher ba nga xamante ne kenn mënatul am euh, comment dirais-je kenn mënatul dund fii quoi kenn dundatul alors ñi amul moyen mënuñu am sax nekk di ko loué fii à Dakar et puis Dakar Dakar xees na del del Jakarta yi boo leen xoolee pollution gasoil bi ñëw loolu yëpp littoral bi fatt bon les les vents yi duggatul biir Dakar pour balayer la pollution du gasoil gasoil bi à Dakar quarante sept virgule cinq pour cent fukki at si ginnaaw le taux mondial toléré était de vingt virgule cinq pour cent te gasoil pollution bi ay cancer lay joxe ay AVC lay joxe. Mhm. donc problème de santé publique même le poser au euh, à cause de quelques personnes yoo xamante ne ils ont joui de privilèges ba pare ñëw toog ci littoral bi Atépa sama xarit boobu nag moo maa ngi koy dégg muy wax ay taxes de privilèges sur le littoral et de mobilisation des acteurs moom ci wàllu boppam bon il faut que bu bëggee une mobilisation des acteurs xam na fu muy jaar xam nga voilà il a les moyens il n'a pas bâti de cité ici xam nga voilà littoral bi ay intérêt rek la ciy gérer bon donc euh, voilà il faut parler moom il crie le jour et il négocie la nuit donc Atepa on lui lance un appel parce que moom moo moom moo naxas naxsaayaloon suñu liggéey toog fii des années gisuñu ko xam nga dégguñu ko wala et puis bon wala quoi donc projet yi mu ñu miroité woon yëpp nga xam ne projet yooyu mooy les plans d'investissement communaux articulés au plan d'investissement euh, euh, les plans d'investissement communaux articulés au plan d'aménagement concerté du littoral concept boobu ñu imaginer woon liggéey ci lu ne xam nga euh, dem ba yàlla dimbali ñu ñu dem euh, à la troisième conférence nationale pour le développement durable au Sénégal def fa ay propositions yu am maanaam par rapport à l'arrivée des ressources gazières ak pétrolières donc suñu liggéey bépp la yàq xëy na génn na na fii am ay moyens commencé di ajite la question littorale di wax ay trente ans mais dara defu ko fi voilà soo demee Pointe de Pamfili bon moom moo fa moom moo moom moo la fa am moom moo ko bref muy hôtel Azalaï bon voilà donc ak yeneen ak yeneen donc moom bu mu ñu tax a wax quoi. alors euh, yéen a ngi doon euh, wax euh, jëm ci plaider li nga xamante ni mooy plan d'aménagement bu jëm ci littoral corniche west bi nan la ñu mën a fexe ba def rek ba préserver li nga xamante ne mooy littoral bi ndax mën nañ ko jaarale ba fi nga xamante ne mooy place bi ñuy wax Jean Lefebvre. mais bien sûr alors décret boobu Macky Sall dafa waxoon ne mooy décret deux mais mais mais Macky Sall n'a pas eu le courage ñëw dugg littoralu Mamel bi donc loolu bu dee porte du millionnaire rek la yem ak Atepa mais dafa mel ni c'est du à l'œil donc ñu ngi wax le nouveau régime bon alors euh, comme l'État c'est une continuité mu encourager cette politique ñëw aménager la corniche ne Wakam rond-point bi Macky Sall dëkk fële fenêtre Mermoz ba mosquée divinité bu jogee foofu mu dugg ci zone u Mamel bi wax naa la zone u Mamel bi benn loi moo ko protégé Alors, euh, conférer au site un site préhistorique, archéologique, monument classe, patrimoine classé, monument classé euh, et site sacré. Voilà, donc zone archéologique là, Senghor moo ko protégé par la loi du 25 janvier 1971 Macky Sall ñëw jël décret di effacer loi boobu cette loi n'est pas abrogée à l'Assemblée nationale je suis je je je je désolé alors président Macky Sall donc foofu defu fa dara loo xamante ne tegu na fa yoon champ de tir bi nga xamante ne sur le plan euh, défense nationale militaire yi foofu lañ doon def seeni entraînement tir ah boo xoolee ni mu tiime géej gi ah, gis nga sax euh, époque coloniale ay blocos rek moo amoon ci littoralu Dakar bi Mais Dakar, c'était une citadelle imprenable en termes de défense nationale. ñuy ñëw di jël champ de tir bi dindi ko pour jël ay souf après di ko jaay ay mètre carré un million ba deux millions foof noonu si site bi li fa am noonu ban sénégalais moo ko moom kan la jariñ usine de dessalement bi kon ne parle pas de ça usine c'est un projet boo xamante ne wax naa ko waxati ko ci médias yi inefficient inopportun alors euh, c'est l'arbre qui cache la forêt pour spolier les terres du littoral des mamelles ah voilà ñu ñëw rajaxe site boobu un site archéologique saccagé ko def prédation après di jaay di indemniser euh, avec des miettes les populations de Wakam yi fa amoon titre foncier ba pare ñoom ñu jël ñu jël ñu jël di ko jaay à coup de milliards lii moo am situ mamel bi et tout cela nous voulons que l'actuel régime alors corrige que ñun SOS littoral nous avons proposer un projet parce que ñun ñu fi rek di sànni xeer quoi et puis sànniwuñu kenn xeer ci dëkk bi lañ bokk dëgg la ñuy wax alors euh, la promenade des Mamelles lañ proposer foofu plan d'aménagement concerté boobu ñuy wax plan d'aménagement du littoral su ñëwee Wakam dugg site des Mamelles fekk ñu fa ñu commencé nañ liggéey la promenade des Mamelles di fa def euh, un espace vert urbain ba pare préconiser fa euh, projet yu ndaw pour la valorisation ak un projet d'envergure boo xam ne état bi moo ko def avec euh, les fonds du pétrole dañu gis ne corniche ouest bi gis nga ni muy wàccee mosquée de la divinité qui est un site magnifique et unique au monde un beau de lumière Majidul Rabbani nga xam ne toutes les télés du monde dañuy wane site boobu alors tali bi wàcc foofu ci quai de pêche Ouakam bi imagine nga ñu def benn genre pont de Brooklyn bu contourner les falaises des Mamelles mais jaar ginnaaw par des Mamelles continuer sur la côte des Almadies et ça peut continuer même ba connecté wu ji avec euh, la VDN prolongée de Gadaye euh, encore parlant de Gadaye mais population riveraine ñu ngi bataillé wu au tribunal tribunal nañ ñu dimbali aussi vraiment wala magistrat yi ñu jox Gadaye def fa prédation jox ko ay sëriñ def du n'importe quoi sur la bande des filaos yooyu dafa war a arrêter parce que ay injustice la yooyu bu continuer sim réew moo fi indi li fi amoon mars deux mille vingt et un ba deux mille vingt deux vingt réew mi bëgg a dem vers le chaos donc euh, nguur gu bees gi daal nañu corriger suñ ko bëggee corriger corriger ko parce que son excellence le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye son excellence euh, Ousmane Sonko euh, le pros euh, premier ministre ñoom domaine lañ nekkoon xam nga s'ils veulent un état des lieux ils l'ont tout suite donc nañu nañu nañu delloo askan wi seen ax ax seen yelleef pour que ñu am euh, un état nguur goo xamante ni il est juste et équitable il corrige les problèmes avec courage pour avancer soo demee Corse am na préfet bu ñuy wax le préfet Mérignac mafia ñoo ko rey dafa ñëw jël son courage à deux mains raser le littoral corse moo tax ñooñu am nañ seeni loi littoral après ñëpp bokk yem ci géej gi donc surtout mamel bi na fa am dafa jéggi dayoo usine de dessalement bi waruñu ko foon teg parce que usine de dessalement bi bés buñ ko bés bu commencé fonctionner mais foofu c'est euh, benn récif naturel euh, naturel la récif naturel soo defoon l'inventaire aquatique foofu presque toutes les espèces de l'océan Atlantique ñu nga fa di fa di fa di fa reproduire et puis même ay crustacés dafa am ay mollusque dafa am façon xeet ay katax ay kéer ay wàkku mbàcc et cetera ñu nay bu lañu on connaît la mer et puis encore zone d'épicentre marin la ñu teg fa usine de dessalement loolu moom mooy la plus grande catastrophe écologique bu Sénégal di créer wax naa ko waxati ko et puis ce projet là amul benn maanaa man ingénieur yu sone si rencontré naa leen audience foraine mairie Wakam mais dañu daw keroog dama leen wax mais posons un débat public vous êtes des ingénieurs moi je ne suis rien je suis quelqu'un qui est amoureux de la nature et de l'environnement mais je vais vous apporter une contradiction intellectuelle ce que vous êtes en train de faire là vous ne mesurez même pas les conséquences. Mar Diagne euh, jërëjëf rek ne yow yaay njiitu SOS littoral ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. maa ngi kontaan seen choix bi ngeen fekk si man pour ma mën a waxtaan ak askan bi. ma mën a waxtaan ak askan bi. a wax.